Médina Cheikh TV, notre chaîne de boo yëgee réalité boobu rek teg gi nu guddi gi daldi di mot ndax guddi gu sacré la te guddi gu sacré kenn du ci caaxaane sa bakkan te bokk na ci caaxaane sa bakkan muy dem gàmmu dëkk ba nga dem nga war ko hormal béréb ba nga dem nga war ko hormal waaye nga ñëw ca béréb ba rek lu la neex nga dugg ci lu la neex nga wax ko lu la neex nga def ko waxuma la yonent bi waaye ña nga fekki woon sax dañ lay jéppi jéppi joo xam ni nag boroom du ko yëg lu dul mu génn àdduna moo tax lu jar di def attention la ndax bu ñu nee guddi yonent bi rek jëmm ja cay dem dafa war a fexe ba bu demee bu mënulit roy yonent bi à cent pour cent mu jéem a refléter son image même bu ko mënul chaque jour mu fexe ko jéem refléter ci benn guddi googu ndax ni ci nit di jëriñoo noonu la ca nit mën a yàqule tooñ bi nga def tooñ bi nga def te tombeewul ak guddi yonent bi soo demee ba guddi yonent bi tooñ ca tooñ boobuy gën a réyati ndax dangay tooñ ki initié gàmmu ga tooñ borom gàmmu gi tooñaale ki ñu ne gàmmu gi te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee taxawaay boobu lu jar jàngataat la kooku benn wàll la ca pour ñuy dem di gàmmu ci ñu def ko yóbbal Medina leer bërëbu Cheikh Tidiane Chérif mi nu jox Seydi Mouhamed El Cheikh sang bi di fi jàngale di fi seddale leer yi moom Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh sunu yaakaar